senegal bu nawet di njaboti njabooti andak ànd ak rawatina ñi nga xamante ni ñoo di néew ju doole yi ab doxantu bañu amal ci Kër Massar di ko firndeel ñenn ci ñooñu taseel nag dañuy nettali jafe-jafe gu ñuy jànkonteel ci wàllu mbënn mi suñu maire yi ñu jàppale lu ñaaw la lu métti la kon nag Kër Masar mi ngi mel nii Kër Masar maire bi fii lay jaar fii fii fii fii lay jaar boobu monsieur le maire si moom fii lay jaar maire bi baax na suñu fere ñu naa suñu rafetul dimbal nañu suñu waay wala mbaay ba nawet bu muy wala bu ma defar dañ koy defar si noor nga xam ne ne nawet bu ñëwee du am benn problème mais instant bii da nga xam sa problème foo jaar jàppale leen ñu si rek. kontaan naa trop lay wax autorité yi. autorité yi bu si mën a jàpp rek bu si mën a jàpp rek te yàlla rek tax autorité yi maanaam yàlla bu si mën a jàpp yàlla rek tax. wala bu mën a dund. du fii kese de. des na de des na beneen boo bu ma ñëwoon taal sama engrais sama càq-càq laa yor di daw di daan doole mais su ma taal dina fi lépp ndox la lépp ndox la. waaye dimbal leen ni président Macky Sall te yàlla rek tax moom la koy ñaan si njëkk ak teraanga le président des présidents maa ngi lay ñaan te yàlla rek tax. son excellence la président Macky Sall bu mel ni yàlla tax xoolal lii lu ñaaw lii mel ni géej ah lii dafa nii fu ñu jëm ak lii yooyu bëri na ñu ngi bëgg a suñu kër yaa ngi màbb rek nag chaque année lii ngeen di dund chaque ah bu année bu gën a dee 2024 bii di ñëw bu gën a piir sax la ñu dund soo moytuwul 2024 bii ñëw lii kin rek mu taa ah. ba kañ man leen ñu waaye te yàlla tax waay di leen nuyu baax di leen dalal nag di leen wax ne am na ñu métti lool si Kër wax dëgg fa yàlla mooy mairie Kër Massar bii ne cat ba cat amu fu baax te fii yoon la quoi fépp da lépp da lépp daf fi aw oto moto vélo seret lépp loolu nag jéem defar yoon bi sax bu am tuuti xam ne mu loolu mën na ko dox soxla am quoi mais su tawee rek nit ñi sonn loolu du yoon ngeen ne seen mairie bi sorewul trajet bi yëpp dara baaxul lépp dara ba fële nee ba cat ba lépp yow soo nekkee sax yaa ngi xooloon gis loolu hmm. yaa ngi taxaw yaa ngi ndox ñooy sàkk autorité yi ñu dimbali ñu. voilà léegi nag suñu suñu nee jàppale jàppale waaw ñun loolu lañ amoon suñu wax. yaa xool nii quoi loolu a jàppale chaque jour chaque nawet ñu ngi noonu loolu yëpp. ah waaw donte yéen a ngi xaar état bi mu euh, mën leen a jàppale inondation ndax yéen sunu quartier yi dëkk Kër Massar ndax yéen a ngi wut ñu leen mën a jàppale tamit pour ngeen mën a defar. waaw toujours ñu ngi koy mais xam nga rek nga euh, fi nga dimbali nga def borom borom donc chaque jour ñu ngi doon mais état bi ñu seetlu bu Kër Massar kese état bi ñu seetlu Sénégal yaa ngi ko rawatina. Bunu jafe-jafe ngeen di jànkonteel fii ci diwaanu Kër Massar ci nawet bi. xanaa bu tawee dañuy am problème dëkkuwaay am problème génn ci dem ci dugg si oto yi bu tawee kër yëpp day fees. dañuy jël di taatan paan yi duñ am benn paan boo xam mën nañ cee fóot dañ koy taatane si kër yi hmm. na del benn néeg la def ñu toll maa sama njaboot ak sama borom hmm. bi sama hmm. ay ba la ñu jël ñu toog ci ay xale yi ñu am fenn foo xam ne mën nañ fee taxaw gis nga sama tànk man muy puus gis nga ni mu

neen matelas sax amul yeneen rombar matelas boobu si buntu kër mu tege noonu noo si toon xale yëpp noo sa fiñ tooy ak ci kaw may leen amul benn matelas ñu ne ma waa dinañ fi ñëw boo ko tey gis ma dégg ma leen ay mbaaj yëpp ñu nekk laay leel sama waa te ñu tëdd tëdd gi gis nga mbaaj yaa ngi fekk may leen tànga mu tànga fekk may leen noonu hmm. sonn nañ trop nag sonn nañ lool lool lool lool lool ñu dimbali daal si loolu noonu jëf wax dëgg yàlla hmm. nawet bi sonn depuis ba mu commencé ba léegi ak nii leen def gis nga ni nekk na nii ba bàyyi ñetti junni lañ fay borom ki doon ñett xoolal mi ni ñëwaat na te ñetti junni maa ngi ñëwaat na instant yi bàyyi rek noonu ba keraa mu ngi sa bopp day dem ba mujj gi day def lu wett sax bu dee ba jeex nag ñu door a bomb kër gi nag door a defaraat rafetal def ko fa lan ngay woote gouvernement bu Sénégal ñu ñëw jàppale leen ci ci ci nawet bi nu mu leen di sonal ñu ne. xanaa nu woo rek ñu ñëw rek ñu jàppale rek xanaa loolu laa bëgg. ma xamee fi may jaar maa ngi jàppale ma ba yëkkati bala daal jàppale ma man daal loolu laa bëgg ñu woon ñu wax leen daal ñu jàppale ma ndax tamit tamit bu ñu jàppale moo moo gën ci lu ci moo parce que xale yi bu ñu feebaree tamit day mit si ñoom parce que day feebar xale yi génn kii sax doom da ko yóbbu si beneen kër kii rek moo fi ne moo fi des si xale xale dem nañ benn xale nekk fii waaw ci loolu daal la nekk nii sonn nañ trop nag sonn lool lool lool duuf yeeg yëpp a fees ci duuf si jaam lañu la am yëre yëpp yàqu na léegi laa génn gis wali si weer loomu leen si weer weer foofu hmm. yëre moo si yëpp moo fees ma jóg ko bàcc ko ba weer ko noonu yëre yëpp moo yàqu si taw ndax bu muy taw te man sant moo ne wali si sax na koy léegi laa dugg ci toog añ bi ko dugg si biir fekk wali si ma écouté musique ma génn ko di ko bàcc wàcce wali si fee yëre yëpp yàqu na fi toll nii dara amuñu ko. seen kàddu ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi tudd Iba Diop. dëkk Kër Massar village. waaw yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel ci ci diwaanu Kër Massar ndox daal inondation daal lañuy ñuy la ñuy euh, hmm. ak problème mu làmp. Hmm. ak tali karo euh, mbedd bi bu ñu ko defaloon tali karo. Hmm. defal ci kan euh, kii tuyau. yu ay égards leen tàggoo ko ndox. waye wax deug yalla bu nawet jotté sonu lol lol lol lol lool duñ tëdd ci dal dañuy ngacc ba asman set bu ñu xëyee asamaan set am ndox mi ñëwaat ñu nekkaat ba kere jotté bi so bu ñu noppalu ko daal nawete jeex nawete jeex wax deug yalla gis na yoon yépp ndox la lepp Kër ma Massar village yépp lepp lepp ndox la kër bo ci dugg ma nga fess di la ndox té dara war lu ko euh tali bi canal yi ci bopam mo baaxul amul amul amul canal hmm. léegi ndox moomu yëpp day kër yi jógee euh, tali bi ndox mi day waa day day obligé du duggaat ci kër yi. Hmm. gis ngeen kii foos bi mi ngi nii di ball. Hmm. loolu daal mooy suñu problème. Hmm, yéen mi jege mairie bi ndax nekkul di def ay jéego pour jàppale ni mairie moom wax dëgg yàlla bi ngi jéem ci kaw tali bi. tali bi moom saa yu feesee maire bi fi nekk wax dëgg yàlla woote naag maire yi fi nekkoon Kër Massar am na ñaari maire yoo xam ne Kër saar lañ juddoo yaroo fi waaye maire bi moom du seen morom. man Ibou Diop man maa ko wax li ma gis ñu di ko def heure bu tawee ñoom ñu ngi futteeku dugg ci biir ndox mi ngàcc ko hmm. maire yi fi nekkoon nag mosuñu ko def hmm. ba daaw daaw xale yu góor yi ci koñ bi yëpp ñoo mobilisé wu di ngàcc ndox mi ndox mi ci kaw tali hmm. ak suñu benn grand frère bi jox Aldo Diop ku ne xam na ko wax dëgg yàlla maire bi fi nekk nag gàcce ngaalaama moom ci la mu commencé ñu gis ko waaw ñu daal kontaan na ci moom ñu koy sant ñu koy gërëm. ban dimbal ngay woote autorité ñu féete ci kaw ñu jàppale ne. ñu daal ku ñu rek ci ndox mi rek ak dimbali ñu ci mbedd bii ñu defal ñu ko tali karo mm-hmm. bu ñu ko amee daal dinañ tàggoog ndox. ak làmp. ak euh, ay problème mu làmp. Mm-hmm. ak tool bi ci ginnaaw tamit ay xale yu góor yi bandi dong nga fi nekk ñu dimbali ñu ci ngir yàlla. insécurité bi maanaam waaw léeg-léeg police lu mu dee dee dee. semaine bu ne war na faa mën a wàcc ñaari yoon ba ñetti yoon waa koñ boobu daal jooy nañ ko lool lool koo ne kooyu xale boo yónnee sax ci ruq bi mën la du dem ndax bu ma fa demee ñu agressé ma ku ñu dimbali daal ci loolu lañ bëgg koñ di daal loolu mooy seen problème problème agression daal ci tool bi moo ñu sonal huit te loolu nag état war na ci man a jéem ay xale yu ndaw ñoo koy def seen kàddoong lay sant waaw ñii di néew ji doole yi la ñuy sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu daal di leen jàppale bu baax a baax a defal leen tali waaye nag lu jëm ci wàllu mbënn mi ñu indi leen saafara na mu gën a gaawee ndax ñoom fa mu nekk nii sonn nañ ci bu baax a baax.